li gën a fës ci biir internet bi dañu koy door rek mbas meek tolluwaayam ak ci biir réew mi ñu gis ne nag jamono ji rek dafa jur ak yokkute bu baax a baax tey rek ci altine ji yamook fukki fan ak ñeent ci weerum décembre atum 2020 Sénégal daal na def tolloog 1122 rek ci ay test ci biir loolu rek 71 rek ñoo ci daal di dikk positif maanaam amee jàngoro ji ci biir 71 yooyu am nañ ci 32 cas contact am ci 39 cas issus de la transmission communautaire 65 patients yi ñu hospitalisé woon rek wér nañ ba dinañ delluwaat rek seen i kër di ci gën a doy waar rek moo di Sénégal dafa am nag lu tollook 21 rek ci ay cas grave yoo xamante ni ñu ngi ci service de réanimation Sénégal rek daal di nañ wàññiwaat rek beneen décès. Ah, bi mbas mi nag duggee ci réewum Sénégal rek ak léegi Sénégal wàññi na lu tolloo ko 17 146 rek ci ay cas ci biir loolu rek 16 159 yi wér nañ ci 350 ñàkk ci seen bakkan ñi ñuy saytu nag ci lali hôpital yi ñu ngi toll ci 636 ministre bi rek di gën di ñaax askan bi ñu gën a sàmmonte que mesure barrière yi ngir xeex bi ñuy xeex rek mbas mi daal di gaaw jeex rek ba activité yépp daal di mën a tàmbaliwaat door comme na mu meloon dañuy wéyandi rek wax ci ki nga xamante moo di njiitum réew mu Sénégal ginnaaw a élection présidentielle bi mu jàllee ndiki février 2019 ab bi ñu génn dafa daal di dindi woon nag li nga xamante ni moo di poste premier ministre boobee jamono ji rek nekk na lool ci xelam ndax dina ko indeem déet loolee lépp danañ ci am lu leen ndiki ay bés ñu génn ndax ki nga xamante ni moo di njiitum réewum Sénégal poste premier ministre boobee mu génne woon daal jamono jamono ji rek bëgg na koo indiwaat lool dañuy daal di wéyandi rek wax ci ki nga xamante ni moo di Barthélémy Dias ginnaaw ba mu nekkee woon invité émission boobu la ñu duppee ak grand a ndaka démb rek ci dimanche ji moom Barthélémy Dias rek lam fa xamle moo di buñ bàyyee rek Macky Sall mu présenté wu rek ci élection présidentielle yi ñu dënmal ndiki 2024 dina ko gañ dina jël rek li nga xamante ni moo di troisième mandat bi ginnaaw système électoral bi nga xamante ni mu ngi koy imposé imposer rek jamono ji ba tey rek ci kàddu Barthélémy la lam xam ne rek nee na il faut que rek peuple bi jug mën a dem ndax moom amul parti amul li nga xamante ni nekk moo di coalition muy dellu rek di ñaanaat population Dakar ñu commencé rek contre li nga xamante ni rek moo di troisième mandat bi nga xamante ni njiitum mu Sénégal bëgg na ko rek jamono jii. Euh, dañuy daal di jubali rek ca Malem Niani bokk ci département Koumpentoum bokk ci région wu Tambacounda lañu fa fekk rek mu di jàngalekatu alxuraan ay atam toll ci juróom-benn fukki at ak juróom moom la ñu fekk rek mu jël jardin boobu daal di koy def rek li nga xamante ni rek moo di ay tool di fa bay rek li nga xamante ni rek moo di yàmba ginnaaw nag bi agent yi rek defee perquisition lañ fa fekk rek mu sukkandikoo rek ci observateur moo di juróom-ñaari kilo yàmbaa lañ fa fekk ak li nga xamante ni moo di pistolet automatique boo xamante dañ ko fabriqué ak artisan général teg nañ ko nag loxo ba yoon nag daal di koy tëj lu toll ak uh, fukki ati kaso jàngalekat boobee rek la mu nekkee woon mooy jardin boobee daal la jëloon rek di fa bàyyi li nga xamante nii rek moo di yàmba mu nekk nag lu doy waar lool te moom nee na ab jàngalekat alxuraan la ci fàttali ay atam yu toll ci juróom benn fukki at ak juróom ñett dañuy daal di jubali rek ca diwaanu Touba ci kër Mbàkke Mbàkke bu nekkee foofee rek ca Ndindi la ñu fa fekk rek mu di ab sàcc rek bu doon sàcc nag ay téléphone portable ginnaaw rek bi taalibe di amal seenub jaar moom sàcc boobee rek da doon profité rek ca kër Mbàkke Mbàkke boobule doon fa sàcc rek ay téléphone buñ sukkandikoo rek ci Sénégal waaye boobule sàcc nag daal nañ koy dóor rek ba muy bëgg a dee dóor nañ ko dóor yu metti dafa mujjee rek daal di réccu ñëw gëm ñëw foofee rek ci kër Mbàkke Mbàkke boobule daal nañ koy jébbal rek yoon yëfi nag mi nga am niki dimanche aji ñu ñu génn foofee rek ci kër benn mbàkke mbàkke bu nekkee ci nit ki xam ne rek yooyu les information moo di ëttu jéglekaay bi ah, di Seneweb ñu wéyandi rek wax bi la yoon rek ci lutteur bi di Omar Sakho ñu gën koo xam rek ci Balla Gaye 2 mu yëkkati nag ay kàddu ngir xamle ne sonn nañ lool fam ko xamle rek moo di ci page Facebook am muy Lion de Guédiawaye bii na daal ginnaaw rek bi mbas mi duggee ne ni rek moo di làmb ji dafa daal di tëj boobee ba léegi te nee na moom mbër la te moom loolu la xam te loolu mooy métier am nee na rek dafa doy dafa war a jeex daal ndax ñoom dañoo bëgg rek dooraat li nga xamante ni rek moo di seen liggéey boobule ah, di làmb ndax la ñuy tedd moom Omar Balla Gaye mi ngi ñaan rek état mu xoolaat bu baax a baax rek li nga xamante ni mi ngi koy doxalee jamono ji di bañ mën a rek dooraat nag li nga xamante ni ñu ngi koy def mu di làmb ji ndax ñoom moom lañu yaakaar te moom lañ am te ci la ñuy tedd ñu daal di wéy ni rek wax ci ki nga xamante ni moo di Ya Awa ak Aba No Stress ñu gis ne nag dañoo daal di jotee woon lool ba ki nga xamante ne nii rek moo di Aba dafa daal di budde woon rek émission boobu la ñu tuppee kàkkataax di am foofee rek ca TFM mu sukkandikoo rek ci Les ko mu xam ne rek ne ñaar ñooñu nag ay xarit lañ la waral nag seen xuloo boobu le ba tey kenn xamagu ko ba tax rek ab laaj daal di sam bu jëm ci ñoom ñaar ngir xam lan moo waral boobu boobulee coow ba tax ki nga xamante ni moo ci Abba ñu gis rek mu daal di buddee boobu boobule ba samedi bi nga xamante ne moom la ñu génn gis ñu ko benn yoon rek mu daal di nekk ca plateau boobu la ñu tuppee ak kakatar dañu koy daal di jeexaleek naqar ak tiis bu wàcc ca diwaanu Touba muy soxna Taayiratu Jaxate nekk soxna ci ki nga xamante ni mooy Serigne Ahmadou Mbacke son yi ñi gën koo xam ci Serigne Cheikh Say Mbacke mi nekk xalifa Serigne yi bu Mbacke moo daal di ñàkk nag soxnaam boobu di soxna Taayiru Jaxate andi ki démb ci dimanche ji yemook fukki fan ak ñeent ci weerum décembre atum 2020 danañ ko nag jébbal boroomam niki tey rek ci altine ji bu ay 17 jotee rek ci armeelu ya équipe bu 24 actu bi yëpp rek di jaale xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bachir ak ak famille Serigne Souhaïbou Mbacké di ko ñaanal rek suuf rek daal di oyof ci kawam lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig daje rek lay doon ba ëllëg a jàmm